bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jumaa ji maa ngi di nuyu sama mbokki taalibe yi fi daje yëpp di jiite ci nuyu bi kilifa yi nag nga xam ne ñoo fi nekk di waati waa ka Serigne Touba ñu sant Mbacke ak ñu sant Boussa ak Saar ak Faal ak seexi Serigne Touba yeeg njaboot gu Serigne Touba yëpp rek di nuyoo ci kàddu Muxaddamatul Xidma di jigéen ñi nga xam ne dañoo àndandoo di. ànd ak ñoom liggéey sëriñ Tuubaa bi di setal jumaa ji te am ci yéene lool di nuyu nag mboolem ku fi nekk rek ci liggéey bi maa ngi lay nuyu di la sant ci turu Muxaddamatul Xidma jigéen ñëpp mboolem saalihaat yëpp rek di fam nuyoo boobu siyaar bi di ko teg ci Seexu naa mu jàlle ko sëñ Fàllu ak mboolem kum ko bokkal lii nuyoo nag nuyoo boo xam ne dafa ànd ak xol bu sedd guy ak mbégte waaye ànd ak it nag xalaat ne ñun ab soññe rek la defal ndax teraange ji ngeen ñu defal tey wax dëgg yàlla jomb nanu lool nag jomb nanu te daf noo yomb kon war nañ koo téye li tax mu am ko muy liggéey Serigne Touba moo na ci boole kon war nañoo man a góorgóorlu bu baax ci liggéey bi dafa séenee def sunu jom ak sunu xalaat ndax sunu tey bii de képp ku fi ñëw saxol sedd na lool sam xel dal na lool te am nga yaakaar sa yaakaar doole ko na ci Serigne Touba ndax ñun fii rek lan am amuñu furu bi Serigne bi rek lan am kon képp ku nu woo ci moom dañu ci teral jàpp na ne yow yaa dimbali. kon nag ñu ngi leen di nuyu ndax bu leen neexoon day bañ noo woo bañ defal benn teraanga te du tooyee kon liggéey war nu ndax noonu ay liggéeykat yi Sëriñ Tuubaa lañ rek liggéey ko rek moo nu war waaye bu ngeen ci boole dinu woo diñuy taral nag te diñu yaatal ci seen bopp diñu ubbil yoon wi ban xam fi jaar ak cant ak ngërëm rek lañ leen ameel te di leen ñaanal yàlla guddal seen i fan te wéral seenu yaram mboolem ko ne ci liggéey bi rek di góor di jigéen di mag di ndaw waaye rawat na nag sunu góor yàlla yi nga xam dañoo ànd ak ñoom ñi taalibi Sëriñ Tuubaa tey doon bokk ci njabootu sëriñ bi ak sax na jaar ak seexi sëriñ Tuubaa yi te jiite liggéeyu daa jumaa ji muy euh, sëñ Fallou ñoom ak sëñ Seexu naa képp kum ko àndal rek di di di wax ne yaatal gii ngeen ko yaatal day am na ci solo lool ndax ñu mel ne man de lii moom dara leen gën a yokk pas-pas li leen gën a yokk xol bu sedd guy itam te dina dolli seen yaakaar kon noo ngi am ak cant ak ngërëm di leen ko jëbal tey ñaan yàlla waan na fi déwén ak jàmm te kenn bañ a manqué di soññ nag sama bopp nu gën a soññante lii ku liggéey doo ko am. dañoo defe ne ay jàmbaar lañ rek te ñun daanaka jéem rek kon nag jéem gi ñuy jéem ngeen doon gàttandu ci teraanga ak pas-pas bii te ab soñña la ci nun fas nañ ko yéenee jàpp bu baax te dinañ ko gën a yeesalaat sunu jëm ak sunu yéene ak sunu itte ba ngeen xam ne li ngeen nu defal xam nañ ko nax gor boo ko terale rek yaa ko moom di nuyu nag aji lamp mi nga xam ne mooy ndeysaan dafa ne maa jiiteenu te yàqul dara di ko baax ku yaatu ku bëggum njaboot nag bari jàmm lool te mën a boot ak njabootam sono soxna Xadi Géey mi nga xam ne yàlla daa dogal nun ñëw yàlla boole noog moom soxna Bintu saar jaamu jumaa ji moom kooku kenn waxaale wu ko di nuyu soxna May Mbàkke mu Seex Muntaxa moom tam di ko jébbal lu euh, nuyoob jigéen ñëpp ndax moo nu fi gën a jege sëriñ bi te gis nañ ni muy waaye fi ak pas-pasam ci jumaa ji kon buñ ko xool rek war nañoo mën a gën a góorgóorlu gën a yokk sunu taalibe te feddaliwaat sunu jàmbaar ci liggéey sëriñ bi di di wax rek yàlla nu yàlla bàyyi nu fekke waat déwén déwén yu bari te li ngeen di def ni ci jumaa ji di ko defal ni doom aadama yi sëriñ yi sang yi seex yi ak képp koo ne ko ci lott la ngeen di ko ko defal yàlla na yàgg seen loxo te lu ngeen ci defaree ren bu déwénee yàlla na ngeen ci man lu ko ëpp liggéey biir yàlla na ko sëriñ bi nangu te dencal nu ci fu dara du yàqu li ci mu fayee ne ko fi nu teraangay adduna ak sutura ak ko taalibe bi nag mu yokkal nu ko ak pas-pas yu ànd ak yéene di nuyu soxna Faat ji Mbacke tam son soxna Bintu Mbacke moom itam jiite Touba ci kanam bi ak mboolem jigéen ñi fi nekk rek bàyyiwuñ genn kilifa daal ndax suñu limee rek dañuy bëgg a juum te bu ñu bàyyi kenn kuñ tudd rek yaa jiitu ci nuyu beeg siyaar bi di leen jaajëfal bu baax dem kontaan te mbégte di wax jërëjëf yàlla yàlla fay kontaan nañ suñu xol sedd na bég nan sunu yaakaar dolliku na kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah soxna yi ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa yi toog am ni ñooy eh, kilifay jotaay bi di kilifay liggéey bi di am ndigal lu yëkkati ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yi kàddu yi sant la ak soññee ci liggéey bi nga xam ne nii ñoo ko bokk te fuñ nekk nga ngeen nekk ci ak ñun kon ci kàddu yooyu la ñu yëkkati ci turu uh, sëñ Fallou mi nga xam ne nii mooy jiite ko uh, commission bi kon sëriñ si nee na ñu ngi leen di doolee sant ci seen liggéey bi nga xam ne nii ñun ak yéen a ko ànd te fu nekk ngeen nekk ca daal nag ay nit buñ bokkeeb liggéey war nañ fuñ toll ñu xam ñu xamal leen fañ toll te liggéey bi yaatu na rey na te am na ci wet goo xam ne nii yéen ko féete kon war nañ leen indi ba ngeen xam li ngeen xam ne nii mooy liggéey bi te soxna yi nga xam ne nii ñoo teew fii ku ci nekk mbooloo topp sa ginnaaw dañoo coqet coqet ku ne ca ci boppi ci boppi mbooloo yi rek ñëw ñu daje fii ngir ñu xam liggéey bi ak dayo bi ak fi mu toll ndax bu ñu eggee xamale ko seeni mbooloo ak ñu nekk ci ginnaaw. ndax ñu tànn bis bii am ni daaw bis bii la ñëwoon ngeen daje feek sëñ Muntaxa yàlla nag suñ borom sàmm te yàggal ko fi te wéral ko ci barkab suñ Tuubaa ren jii tamit ku ne xam ne ne jëm na mag ak i coono yoo xam ne nii am na ngant mu yebal fi sëñ Axma ñu bari daje fekk nañ ak moom fekk na leen fee ba saxwanteeg yéen kon bis bii lañ leen tànnal boo xam ne bu ñëwee ngeen war xool liggéey bi Euh, fekke ko daje feek ndawul sëñ Tuubaa muy taw tawféex kon nag ñu ngi leen xamal ne liggéey baa ngi noonu tànki tànki kanam laa ma waaye amul tànk ginnaaw mën nañ koo tàmbalee fa tàmbalee woon ba fi mu egsi tey ku ne xam ne am nag yokkute bu baax a baax a baax ñun ñi nga xam ni suñ borom yàlla fekk euh, defoon na ñu fekkee ja tàmbali ba xam nañ yokkute gi bu baax a baax a baax kon nag ñi ngi ñi ngi leen di gën a sant ci taxawaay bi ak ci mbooloo yi fu mbooloo mën di jógee te xam ne liggéey bi yéen fi ngeen fi féete muy fi ngeen fi jàpp muy seetal jumaa ji lépp lu ngeen ci man ak lu ngeen ci defoon ba yeboo ngeen bàyyi ko ci ginnaaw te tàmbaliwaat te jumaa ji xam ne dafa war di set bit bu set bit bu set dafa war di set ni ñuy seetalee suñuy néeg ak suñuy kër noonu lañ ko war a seetalee kon kilifa yi ñe nee nañ ñu ngi leen di dollee soñu te di leen sant ca lii nag ab ab soññee dong la ci ñun waaw moo waxee ñun nag damay damay boole sama bopp ci na ma ko baaxoo waxee kon nañ xam ne liggéey sëñ Tuubaa wàccut kenn jombut kenn ndax bu wàcc doon am sëñ taxaa wàcc te lii biñ ko tàmbalee sëñ Muntaxaa moo ci njëkk a indee barkeeloom mu ma leen ca tàmbali yéen ñi soxna yi ku andi na aw ñaqam boole def ko ci mu fekk ci liggéey bi kon daal kàddu yi kàddu yi sant la ak soññee te xam ne kilifa yi bàyyi nañ leen xel lool waxtu wu ne ñu ngi làmb ak a seet ak a xool bu ngeen leen gisee ak bu ngeen leen gisut kon nee nee na leen ñu ngi leen di ñaanal liggéey bi ngeen liggéey ngeen daje ceeg tawfeex Sëriñ Tuubaa te loolu ñaanuk doomi Sëriñ Tuubaa la ah, sëñ Saliou ne waxoon na rafaxtu xidmati tawfeex xaali xanaa ah, am siyaare bu ñu ko mu yëkkati kàddu googu kon nag yàlla nañ ko suñu boom defal tawféex te koor yi ñuy koor mu de bu mu nekk suñu mujj koor li ñuy li ñu fi jaamu ak li ñu fi liggéey suñu boom defal na ko fu yàq yegut sëñ eh, sëñ si nee na ñu ngi sant bu baax tey ñaan tey rafetlu seen pësiyëf ak seen taxawaay te xam ne saa bu leen jumaa ji soxlaa muy guddi muy naaj ngeen jóg te bu ngeen ñëwee lañ leen soxlaa ngeen def ko lu kawe njort kon ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax xam naa jotaay bi daa xaw a yàgg. Euh, te ñi soxna yi fa ñu ñibbi xaw a sori te ñu jox ñu ndigal léegi rek te ñun euh, xawuñoo mën a baaxoo wax te mënuñoo ñàkk wax kon dañuy yamale foofu suñu kàddu rek te xam ne soxna yi ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ muy waa gaaw bi a juma talaata àllarba alxames ba ci asaabu janat amam alxames ñëpp rek ñoom lañ dajale fii tey ku nekk mbooloo moo topp sa ginnaaw pour ñu xam liggéey bi xam fi ñu toll bu ñu eggee jotee ko seen mbooloo kon ñu ngi leen di ñaanal di leen sant yéen ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا